kii li ma gën a neex ci moom daa may rek te man damaa bëgg mbër maa bëgg mbër bu mu dee. jamono dégg nga kii boobu gis ay réew. ah bàyyi fabrique yi ana si bàyyi seen jaatar kii xam na moom moo boole moom. lamb boole wuñ de kii comédien li ma def ci lamb defu ko maa ko bi victoire ñi ma bëre bëre wala ñoom. waaw lan la day lépp que lépp lépp lépp man su may xayma. alburi nga ne. moom moo xam lu muy wax. moo xam ay defet ak ay daan ak yow. yow loo xam. man la ru man couronne bi laay liggéeyal man xëyuma teelawaat te yàlla comme nattan fay du la xëylu man damay liggéey bu baax a baax waxu mu dem liggéey. kon yow da nga wax ne njabaan liggéey. la bu dem liggéey affaire bi du wax. njabaan la wax. ba may liggéey mi ngi nelaw. ba may liggéey mi ngi nelaw. tey loolu boobu dama koy duma. dama koy duma. parce que sëñ bi waram koy duma. Eh,